sur le plan politique euh, euh, pour abonné wu ngeen baal ma euh, ci chaîne de production bi Tawfekh Production ngir di mën a jot en temps réel lépp lu jëm ci information yi nga xamante ni site bi mi ngi koy dugal maintenant beneen actualité soxol na ba tey sur le plan politique moo jëm ci mbiru Aïda Diong ak ki nga xamante moom moo di Issa Sall mooy li ma wax sànq rek malheureusement que tey jii comme ni ma ci le député de Fall ci nouveau profilage bi ñu gis sur le plan politique bi mën a dara xel avec cette nouvelle génération maintenant sax euh, moo tax ma ne bu ñu sànni ñëpp xeer bu ñu mettre tout dans la poubelle parce que ku ci mel ni ay député Issa Sall ku ci mel ni ay Aïda Ndiong du ñu référence su le plan politique ñu jox kenn référence parce que seen mbiri bopp moo leen tax a jóg mënuma comprendre dans ce dans dans ce pays bi nga xam te nous faisons partie parmi les vingt cinq pays les moins avancés les paiements euh, pays gën a ndóol gën a am jafe-jafe ba pare nit ñuy dundee fii di dund ci kaw askan bi liñ naan cere euh, rankoñ baado la mooy siim cere buur parce que Aïda Ndiongue gis nañu ñu ko toppee woon ci wàllum produit phyto euh, kii phytosanitaire yi ak li nga xam te moo di njuñ njaaj ci am lu ci bëri ñëpp teg ci seen gët non lii ak yu kenn xamut procès ba mujjul fenn demul tënk digul mbay laa parce que lan président de la république képp ku ànd ak moom mais sa ginnaaw bandang képp ku bañ a ànd ak moom la preuve gis nga ci xalifa Sall gis ko ci ñeneen ñoo xam te des dossiers politiques moo leen topp ba atterrir au niveau du tribunal moo tax ma ne tey jii qu'est-ce qu'ils vont servir de même que Issa Sall comment tu peux être candidat à une élection présidentielle de 2019 en 2019 nga wàcc battre campagne des militants même ah ont subi des violences gis nañ cortège bi quand il a euh, euh, donc son cortège a été attaqué ah dans la au niveau de la zone sud gis nañ bu baax a baax c'est blessé ba jusqu'à présent il y a certains de ces gardes du corps qui sont dans les liens de détention tey jii yow nga ne woon da nga un projet ambitieux pour le Sénégal tu portes un combat malheureusement ndekete yow yaa ngi ci suuf di négocier mais bettul kenn ah, parce que mooy li dal Omar Sarr rek gis nga dialogue ba mbooleem ñi sa demoon dialogue politique bu ñu njëkkoon a woote mboolem ñi sa demoon ñëpp dañoo négocier parce que lan dañu yàkkamti bëgg nañu nguur bëgg nañu sukkaru dañu bëgg sukkur njariñu askan bi taxu leen a jóg moo tax le parti PUR a raison de réclamer son poste de député à Issa Sall parce que ministre conseil qu'est-ce qu'il va conseiller au chef de l'État malheureusement président foofu daf ñu tooñ président de la République Macky Sall waxal daf ñu tooñ parce que xam tax mu tooñ président day nommé dëgg la c'est dans ses prérogatives c'est la constitution qui lui permet de faire cela de décréter quand il veut où il veut et avec qui il souhaiterait quand même nommer par décret maintenant signifie pas que aussi président dafa war a def lu ko neex parce tamit ay conseil ministre conseil combien de ministres conseils ont été nommés sans pour autant que les gens le sachent beneen bi mooy qu'est-ce qu'il au chef de l'État dara dara ba dara boole xanaa dem am seen solde am seen salaire seen njaboot sax conseil wuñu leen waxuma laa conseil président la république parce que lan bëgg ngir yàlla am leen bëgg-bëgg ci intérêt yi réew mu Sénégal am leen bëgg-bëgg ci njariñ luy suqali Sénégal mais bettuñ kenn Aïda Ndiongue Issa Sall kiif kiif rek transhumance moom euh, moo tax damay damay faral di wax ma ne euh, am na ci ñoo xamante waru leen tuddee ay homme politique ay politicien lañu wala ay politicien parce que jikko yooyu jëf yoo xamante ni sa waxi dem ak sa jëfi tey dafa mel ni yàlla ak yàlla dafa waroo kooku waroo ko woy homme politique wala femme politique kooku da nga koy woy politicien parce que les hommes politiques c'est c'est des c'est des gens qui sont dignes euh, imbus de valeur yoo xamante ni ruus nañu gàccalu ci def yenn yoo xam ne gàcce dana leen ca fekk mooy ñi nga xamante ni dañuy dem assemblée di défendre di contrer l'action du euh, des politiques publiques di nangoo wax dëgg di nangoo jàkkaarloo askan bi teewal leen fa mooy ñi nga xamante ni duñ lekk bàyyi askan bi mooy ñi nga xam di xaaruñ oto bu rafet xaaruñ kër gu rafet xaaruñ passeport diplomatique ngir man di tekki ci kaw doomu aadama yi nga xam te jii bu dem dërëm la sax ñooy fay chef de l'État ñoo koy jox caisse noire ñoo lay jox armée ñoo lay jox kaara jox la lépp malheureusement suñu landerneau politique bi Euh, euh, euh, dama naan yàqu na mais heureusement am nañ des nouvelle élites yoo xam ne namm nañ namm nañu soppal ñu loolu te loolu yaakaar naa ne ça va changer parce que sénégalais aussi ils sont matures actuellement yeewu nañu te actuellement duñ nangooti kenn di jaar seen kaw ndax fi mu nekk nii les manifestations qui se sont déroulées tout récemment donc montrent à suffisance comment les sénégalais comment les jeunes comment le peuple sénégalais maintenant retrouve sa souveraineté comment le peuple sénégalais également s'est mobiliser pour récupérer pour ñu laaj li nga xam moo ko moomal boppam moo tax fi mu nekk nii c'est très important que ñu bàyyi xel loolu bu baax a baax mais nag politique moom moo salte nguur moo mel noonu opposé wu yombul yaakaar le chef d'état président Macky Sall bu amoon pour euh, kii euh, excusez-moi Abdoulaye Wade bu amoon plus euh, ful jom jooju ak mit ak ñi me coono googu opposé wu pendant vingt six ans keneen ko ko ci def mënu ko ci ñu ci bëri gis nañ ko ci Idrissa Seck Mbrok Sow parce que xam nañu opposé wu Sénégal défendre les intérêts du peuple def des contre propositions yombul ndax na ngay yàkkamte motaar ya ak nguur ga nga sukkaru ci jamono bi nga xam ne le pays fait face à des difficultés sur le plan sanitaire sur le plan sécuritaire sur le plan éducatif et dans d'autres euh, qui pouvaient être nommés yoo xamante gis nañ fa ay faillites de la part de ce régime déjà euh, ki nga xamante moom moo di le président Macky Sall. ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll si biir réew mi si biir réew da ngeen di abonné fii si Tawfekh Production ngeen mën a jot moo leen vidéo boo ne dugal a nga xam